nii allah maa ngi koy nuyu bu baax aussi au passage. Mhm. juste rek ci kii boobu sax abscisse boobu. Mhm. njumte boobu. Mhm. parce que euh, mooy c'était le juge dem donc qui habite même à Thiès maa ngi koy wax sax ci biir wax man ni le juge Deme Kandji bi dëkk Thiès. voilà donc c'était juge dem quoi. c'est un abscisse. voilà bi muy wax mu ni rek euh, j'ai démissionné d'une justice qui a démissionné. donc loolu moom mooy li ñu doon wax rek. Euh, yoon dafa nekk loo xam te dafa soxal askan wi. te yoon bu demee ba defatul li nga xam ne moom moo nekk wareefam rek donc su boobaa nit ñi dañuy dem ba finalement dañuy obligé di fajal seen bopp di jëfal seen bopp. Mhm. ak di def na ko dul noonu. Mhm. moo tax quel que soit euh, alpha ak lu mën a am rek justice moom donc dafa war a exercer ni nga xam ni noonu la ko askan wi di bëggee ndax loolu mooy mën a tax pour en fait la paix am quoi. Mhm, bu fekkee am na ko salaamaaleykum. allo. maaleykum salaam soxna Diar. Cromac Tine ngi lay ziar di la jëfal bu baax a baax. waaw ñu lay fay bu baax di nuyu hmm. kilifa boobu nga toogal. ñu ngi lay fay hmm. di nuyu seen. Hmm. Ah, waa jooju ne ko na dem toog na dem toog. <laughs> waa jooju jaxasikat moom ci li ngay liggéey rek ngay juume. waaw loolu nga de um, um, suñu suñu waay la nag min na deux <laughs> maa ngi koy nuyu nee ko nee ko na ñëw jël sama place. ah man de ma maa ngi ñaawlu lu xew Sénégal trop te di ci am aussi kersa. Mhm. ndax gis nga képp kuy sénégalais gam sa réew bëgg sa réew ah ngay génn aussi di xam li xew ci réew ci réew ci ci ci li xew ci àdduna bi war ngaa mën a am gàcci bu dee nit koo xamante ne ki ki ki ki am gàcci la. Mhm. parce que gis nga li xew Sénégal tey tey tey man jàpp naa lu mënoon a ñàkk la. waruñu woon a accès ñi naan dañoo jum ci ci ci ci information yi wala juumuñ ci ku yeewoo Sénégal yaa xam gam nga Sénégal wala gamoo Sénégal yaa xam gam nga Ousmane Sonko wala gamoo Ousmane Sonko xam ngeen ne Ousmane Sonko ku ñu tooñ la ku ñuy neewal doole la te toujours li may wax rek gis nga nit nu mu am am kattan yàlla la jox kattan te man dama part dama jàpp ne ala kulli xaal yàlla na may Ousmane Sonko ndam parce loolu laay ñaan yàlla. justice Sénégal dafa rusloo doomi Sénégal yi ci àdduna bi di leen rusloo gis nga nit doo doo ragal nit ñeme yàlla loolu justice Sénégal laa koy wax ñoom nañu ragal yàlla gamante gam ne seize yooyu nga xamante ñoom ñoo ci toog di di di di ate alaakulli xaal dinañ fa jóg ñu suul leen ci biir suuf ay ñeneen toog foofu doomi aadama dangay dangay xool woy bu rafet ngir say doom ngir sa réew ngir sa askan da ci weesuwul yow gis nga faatu nag ci biir suuf ñu war la di ñaanal ah ñi naan bu ñu waxee satu ñu ne cim diw lu mu doon lu lu mu nekkee woon te dara waralu ko lu dul alalu àdduna ak ragal ngul lan mooy ragal soxna jaara do nit du dee ñaari yoon nit du dee ñaari yoon gis nga bu dee fekkante woon nit da ngay attase ñu rey la ci saase wala nga atte ñu wàcc la ci saase attel te yàlla tax man duma ànd ak ku nekkul ci yoon gis nga damay doon dama doon naan bu doon Ousmane Sonko moo tooñ nañ ko tëj ba dem caabi bi ci biir kaso bi waaye dañ ko tooñ nañ gën a doomu jàmbur nañ bàyyi jàmbur mu bokk ci élection yi man de ma part chaque jour damay ne man élection laa gamut te gis nga boo gisee lu justice bi doxal nii dara leer nañ ni xalaatuñu dara lu dul pousse élection pousse élection la ñuy xalaat. Mhm. voilà nañu yërëm askan wi nañu yërëm askan wi. tey li ñu def nii nga ci weesu ga ci weesu ko man nag maa ngi koy ñaawlu. salaamaaleykum wa hmm. rahmatulah. merci beaucoup Komatin ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax mën ngeen woote ci 77 914 64 93 su ko defee rek ngeen daal di mën a dugg wax seen xalaat ci li nga xamante ni ah, moom la ñuy daal di waxtaanee tey ñeel ah, verdict yi nga xamante ni daanu na ah, bu yaw woo CEDEAO daal di neenal Ousmane ko ci recours yi nga xamante ni defoon na ko ne rek état wu Sénégal amul benn ak kam ak yelleef bu nga xamante ni salfaañe na ko jëmale ci Ousmane Sonko. beneen euh, mbir mi daal di ñeel euh, foofu la ci doon euh, cour suprême jamono ci ñu toll nag juge ba daal di nay neenal décision bi nga xamante ni juge si fay jëloon na ko ngir ñu daal di dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi ba noppi daal di leen renvoyé ci doon tribunal bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay ziar mbokk mi. maam maa ngi lay fay. maa ngi hmm. wootee Grand Yoff. Grand ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. donc c'est avec le cœur boobu moom laay waxee tey mm-hmm. gis nga peuple bi le peuple n'est pas un peuple dupe ñun lu état def rek xam nañu donte Seydina Ousmane Sonko a amené un éveil de conscience et ça je ne cesserai jamais de le dama ne la justice à Lille bu demee ba mën a kase pour mun a annuler un verdict de son collègue am na mun a joxe verdict un responsable on l'affaiblit pas dans un penc kilifa doo ko toroxal ci pénc c'est son collègue deuxièmement pourquoi il n'a pas voulu lui donner le verdict parce qu'il a fui ses responsabilités peuple bu dofuñu de ku ñu jàppee dof yaa dof je vais m'excuser parce que je parle avec le cœur ku ñu jàppee dof yaa dof ñun xam nañu bien le jeu le temps nag ne nous attend plus il est l'heure nag que Pastef choisit son plan B ñu mun ñoo jox ay ndigal ñu jëfe duñ ko mës a baax Sonko les faits sont là Sonko ne sera pas candidat il faut que nous les patriotes ñu xam ko hmm. dañuy yoo ci xeex qu'on refuse catégoriquement ne serait-ce que pour xale yi nga xamante ne dañoo dee ci xeex Sonko depuis mars 2021 hmm. li état bi bëgg bu ñu leen ko joxee rek on sera pas on comme eux te nee nañ bu la mbaam wékkee nga wékku ko yéen a mhm. ay nit lañu nous sommes pas des animaux ay nit lañu yor suñuy xel nekk nag ay ay ñu jàng nag xam tout ce qui se passe dans le pays c'est la raison pour laquelle tey jii xale yëpp gedd dëkk bi xaw ma dañ leen a xabtal xaw ma ñu def immigration clandestine pourquoi parce que suñu leaders ceux qui sont au pouvoir ils sont là di piétiner nos ressources di détourner les biens publics et personne ne dit di mhm. dem seen kër di ña di def seen non non su kenn mënta wax alors que le bas peuple est là en de souffrir au plus profond de sa chair dina kañ lay jeex Macky Sall du lii la waxoon jële le dis je le répète du lii la waxoon la justice divine nag tôt ou tard finira par triompher Siré Ari Siré Ari yi dafay jël kiiwu verditu Sonko kase ko refusant de donner son amul problème Mm-hmm. mais nous li ñu wax a def mooy qu'on fait def suñu plan B et on passe à autre chose. Mm-hmm. donc de là où il est il est conscient que ni xam ne nit ñi dañ koy téye wasalaam. voilà kooku euh, ma ñu doon wootee ci diwaanu euh, Grand Yoff euh, Cheikh mu wax lu mhm. am solo li nga mhm. xamante ni defe naa ne ñu ëpp ci waa PASTEF moom la ñuy bañ a dégg muy plan B. Mhm. mais man dama jàpp ne jamono ji ñu toll nii nag jot na ñoom tamit ñu def ab leen maanaam toog waxtaanee ci seen biir ndax li ma gis nii. Cheikh dalatul xel ci ñoom ci ki nga xamante ni ki ñu bëgg a tabb muy Ousmane Sonko ak jafe-jafe yi nga xamante ni jamono ji mi ngi jàng jànkoonteeg ak moom te xamuñu kañ lay jeex est wa ndaw si wax dëgg dëkk Grand Yoff que ni jot na aussi ñoom tamit ñu nangu li nga xamante peut-être du mën a sax ndogalu yàlla la waaye gis nañ li xew ñu ko ñu ñu ñu waxtaane ci seen biir ki nga xamante ni tey jii lay wóolu nañu ko ndax defe naa ne Ousmane Sonko am na leen loo xamante ni moom yàlla defal na ko ko mm-hmm. tey jii bu ne woon fal leen jaaram yi Euh, defe naa ni lu ëpp ci euh, ñi nga xamante ni ñoo faxe ci Pastef man la ñuy daal di àndal donc est-ce que mm-hmm. tey nag plan B boobu nga xamante ni ñoom ñu ngi koy bañ a dégg jotul au instant bi nag ñu focus ci plan B euh, naam xeex bi moom jeexagul waaye focus ci plan B nag dafa daal di jot mm-hmm. waaw plan B moom xanaa man li ma jàpp mooy tôt ou tard mais avant loolu mm-hmm. may dugg foofu sax dafa am ñaar yu ma ci jaaxal mooy soo xoolee parenage bi léegi tey mu jeex mais ba léegi fi mu ne nii sax ndax jamono yële paase boo xoolee su lay Diop euh, kii nu ñu koy waxee sax euh, Birame Souleye Diop ak Guy Marius Sagna boo xoolee am na cinq candidats yoo xam te ñoom demoon nañ jëli seen fiche de parrainage. Mm-hmm. mais ba léegi déggoo déggoo ci kenn koo xam te ni mu ngi collecté ay ay ay parrain. parce que dañu doon wax ñu xaar peut-être ñi nga xamante ni mu nekkoon en lañ doon xaar. mu ñàkk en cours pour mu jàll. Mm-hmm. d'accord mais bu fekkee tamit ni comme lii nekk en cours na te amee wuñu ko amaana ñoom ni ñu ko bëggee. mooy foofu moom euh, plan A euh, dëggal plan B moom mënul ñàkk. Mm-hmm. te sax benn tamit euh, soo xoolee ñoom date bi ñu joxewaat ñoom su ñu ko toogaatee presque mu àgg fa est-ce que tamit. Euh, kii bi maanaam collecte de parrain yi dina mën a am. Mm-hmm, mm-hmm. parce que soo xoolee mais ñoom déjà am nañ li mu député yi ci ci assemblée nationale. waaw loolu boo xamante ni je pense buñ ci wutaatee benn wala ñaari député dolli ci mën nañu am mën nañu parrainer ñaari nit donc pour man loolu loolu du problème ci ñoom moment yi ñu toll nii. waaw loolu moom mm-hmm. avantage waaw loolu moom avantage bu rëy a la. mais soo xoolee euh, ci benn côté bi ci bu comme ni ma ko waxee sànq rek bu fekkee ñoom li ñu bëgg ci Ousmane Sonko amuñu ko euh, mënul ñàkk plan B loolu moom parce que mm-hmm. tamit poids électoral passif man mënuma gëm ni élection yi dana ñëw donc daal di daal di wane mm-hmm. daal di wane mm-hmm. neutralité loolu moom mënuma ko gëm xëy na nag ñoom li leen gënal amaana euh, parce que tamit man nekkuma ci seen biir mais li ma njott te xalaat ko ci li may analyser mooy Sonko ñoom bu ñu sañoon Ousmane Sonko moom mooy dem. nekk candidat su fekkee amaana nag loolu amul def nañu seen effort def vraiment corps et pour bëgg Ousmane Sonko nekk mais loolu mënul am su boobaa moom forcément mënul ñàkk plan B. Mhm. plan B moom mënul ñàkk plan parce que man foofu euh, li tax ma wax ci mooy euh, politique tamit benn moment stratégie la. effectivement comme ñoom ni ñu koy waxee ñu ne affaire bi nekkul ni xol la ñu koy xeexee mais jamono yi ñoom jamono yi ñu toll. dañoo toll sax na ci jamono yi ak seen. jamono euh, bëgg-bëgg. li ñu mm-hmm. bëgg mooy fal Ousmane Sonko. mais comme yàlla teg na ko nag jafe-jafe yi mi ngi ci kanam c'est dafa jot aussi ñoom ñu waxtaan seen bii wut seen plan B parce que nag loolu la ñuy a dégg boo koy wax commencé di wax sax dañ lay saaga que ni ñoom seen plan ba Z A ba Z Ousmane Sonko mais dafay toll foo xamante ni mbir daf koy laaj stratégie dafa baax gis donc xam naa ne fii ak ay fan yi néew aussi ñoom dinañ amal waxtaan ci seen biir bu ko defee ñu gindi ñi nga xamante ni ñoo ànd ak ñoom mm-hmm. ci naka la ñuy def wala ci élection yi présidentielle 2024 ci ñu mm-hmm. dëtmal ñoom fan lañ ci daal di féete bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum allo voilà continue leen di wootee ci 77 914 64 93 su ko defee rek di ngeen daal di mën a dugg wax seen xalaat ci li nga xamante ni euh, moo ñeel tolluwaayu euh, réew mi actualité bi ñuy waxtaanee tey ma daal di jaajëfal nag ñi nga xamante ni ñoo fi nekk bu baax léegi Moussa Lam mag lay nuyu di la jaajëfal Fatou Thiam ne na ma jaari xol yi metti na massa ñu ngi leen ci massaw bu baax a baax di euh, Mbaye Guèye ñu ngi lay nuyu di nuyu Anna Vito ah ma Marietou maa ngi nuyu ngeen ñëpp bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar mbokk mi di la jaajëfal bu baax a baax. waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax a baax. d'accord yow rek la ñuy déglu mbokk mi. waaw dama bëggoon dugg ci émission bi. d'accord yow lañuy ñuy déglu. Mhm. waaw tur bi dama koy leb mais man dama jaaxale ci suñu réew mi di Sénégal. Mhm. ndax réew moo xam ne da ngay xool nit ñi mel ni duñ ay jullit wala euh, daal doo xam lan la ñuy xalaatee quoi. Mm-hmm. ndax Ousmane Sonko boo xoolee bi mu commencé ba léegi eh, chaque jour lu mu dugg ñu ko ciy teg ay coono yoo xam ne doo comprendre ba pare kenn kenn mënul xalaat lii lan nan la demee nii quoi. Mm-hmm. mu nekk mbir mu doy waar mu metti mu tiis. ndax euh, sànq ñu ngi dégg ñu jëkk joxe benn information suñu xool sedd ñuy manifester di tëb di dal après même pas cinq minutes ñu di déggaat leneen quoi. Mm-hmm. mu nekk mbir mu doy waar moo xam ne si maanaam kenn mënul comprendre juge yoo xam ne si man xaw ma dañuy juger wala lan la ñuy def. Mm-hmm. yow sa moroom ñëw na def benn àtte ñëpp xam ni kii li wax dëgg la. kuy muy gone gën a ndaw sa soo ko yeewoon tey ni ko lii mu xam ne lii mooy dëgg nga ñëw taxawaat nii da koy kase pare yow amoo audace joxe sa décision la kon loo ciy kase. Mm-hmm. mais lan moo waral loolu lan moo ko waral Ousmane Sonko lan la di deful dara ñu koy topp di ko tuumaal di yàq deram di ko toñ-toñal duggal ci kasa bi di ko métital lu ne ñu koy def mais est-ce que ñoom xalaat nañ ni ëllëg danañ dugg ci biir bàmmeel rawat na tey ji yaa ngi nekk ci jour àjjuma nga ne da nga dem julli ji juma ñëw yow li ngay wax mu leer na ay fenn la tamit teg ci kon loolu doon di julli ji lan ngay taxu di julli jël ngay julli jël ngay def dara te lu ñu yàgg-yàgg Ousmane Sonko day dugg kaso mi ngi ci kaso mais ñoom nañ xam ni beneen kaso mi ngi seen kanam leen xaar muy bàmmeel te lu mu yàgg-yàgg danañ ci jaar yi te lu waaye jëf nag moo la fa moom moom nga fay moom nga fay dundee incha allah mm-hmm. nga nekk jël nit ki yóbbu ko ci kaso bi mu yor njabootam yor ay soxnaam am yaay am ay am di jàmm nga bàyyi ko fa xañ ko njabootam xañ ko ay soxnaam xañ ko li yow nga wàcc dugg sa biir kër say doom gàttandu la papa ñëw na say soxna teeru la yow nga bàyyi koo xay deful dara nga tëj ko fële xañ ko loolu nga yaakaar loolu ëllëg yàlla suñu dana ko seetaan mm-hmm. non yàlla du mësu seetaan loolu nañ bàyyi xel loolu àdduna bi day jeex nguur àdduna day jeex nga ne ci dunyaa bi fii maanaam di def lu la neex def lu la saf xalaatoo dara mais ëllëg day ñëw lu mat a sóoraale la mhm. nañ bàyyi xel li ñuy def te ñu xam ni àdduna bi àllalu àdduna amul solo day jeex tooñ nañ doomu jàmbur ji sonal nañ jàmbur bi xañ nañ ko léppam ngir yàlla nañu bàyyi doomu jàmbur ji mu liibut sonal nañ ko trop wax dëgg yàlla su suñu xool dafa jeex ba yi dañoo yërëb Ousmane Sonko Ousmane Sonko yàlla ko yàlla jàppale. amiin yaa rabbi. Mhm. deful dara deful ca la bañ commencé ba léegi koo xay si dafa bëgg dafa lu bëgg réewam benn tool rek la Ousmane Sonko am muy bëgg Sénégal mais du leneen lu dul bëgg Sénégal ñu ñëw jël lu ne de ko teg ci kawam lu xalaat lu ñaaw lu ne nit ñuy wax léegi kenn waxatul sëriñ si ñaan nañ ba sonn mujj découragé ta plateau yi foo tourné ñu ngi wax foo dugg xam ne Ousmane Sonko moo am dëgg ñu mel ni ñi ñoom dañu fàtte li yàlla suñu borom waxoon xanaa wala boog dañu xalaat nii li nga àtte fi fii la yem te wallaahi azim lu da ko àttewaat mm-hmm. chaque ñu dégg ustaas yi ku mel ni ustaas Diaga yeneen ustaas yi ay mata pam ustaas euh, Matar ñuy taxaw di wax di wax loo xay si xaa ñu wala ñun duñ déglu wala boog jànguñu dara wala bu demee ci jumaa yi di julli duñ leen xutba waar leen wax leen li ngeen dégg nii ëllëg fii la mën a mujj moo waral lii lan moo fi jar lii lu fi jar lii lan lan moo ko fi jar wala ñoom bokk kon jiite Sénégal ñu bëgg jiite jiite ko ba defar Sénégal wala seen bopp lañ bëgg a ji moo tax ñu bëgg a jiite Sénégal bu fekkee defar Sénégal moo leen tax a jug ku jug ni da bëgg a defar Sénégal dañuy bàyyi ñëpp jéem ku yàlla jox ndam nga xam ni kookoo am ndam mais lan moo lan leen xëccoo xëccoo bi kon am na leneen ne si biir lu bëgg jiite Sénégal kese nañu wax dëgg te yàlla tax. doy na waar doy na waar. affaire bi doy na waar trop. soxna jaajëf merci maa ngi leen di Euh, merci 2A TV rek laay seetaan. jaajëf joxe sama tur nag quoi. jaajëf amul problème comprendre nañ leen. waaw jërëjëf yàlla na yàlla defal leen jàmm maa eh, mais rek suñu xol neexul quoi vraiment wax dëgg yàlla. jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup ñu ngi leen di euh, jaajëfal bu baax a baax di leen masawu euh, eh, li nga xamante ni jamono ji jàpp nañ ni moo xew ci bésu tey jii Ousmane Sonko comme ni ma ko xewoon sànq daanaka verdict yi daf neexul ci moom mën nañu daal di wax loolu bu CEDEAO bi ak bu Cour suprême jamono ji ñu toll nag bu cour suprême daat na koy daat nay casser décision aussi saba si fay bi ba noppi renvoyé leen ca douane tribunal bu bu bu Ziguinchor bu bu dakaar li ma ci jaaxal mooy moom kay ba mu casser mënoon na joxe verdict bi rek lan moo tax wala lan nga jàpp ni moo tax moom nanguwul euh, joxe lu jëm ci ñu ñu ñu dugal Ousmane Sonko wala ñu bañ ko dugal comme casser mhm. na ko kay mhm. mënoon na def mbir mi rek mu jeex benn yoon <laughs> moo tax mu yóbbu mu renvoyé waat leen waaw xam nga loolu moom soo xoolee tamit dafay nekk mbir moo xamante ni. Mhm. Euh, c'est un peu profond. parce que xëy na yenn yenn yenn décisions yi peut-être ñoom duñ ko rend public. d'accord voilà mais bu ñu sukkandikoo rek ci yenn ci yenn avocats yu yu Ousmane Sonko yi. rawatina maître Clédor moom comme ni ma ko waxee sànq rek que moom nee na le juge Sabasy Faye euh, def na liggéeyam waaye bi mu defee liggéey ba pare ci biir euh, kii bi dafa waroon a wax ñu ni euh, yenn yenn papier yi bu ñu ko yóbbu mairie. donc ba pare mu ñëw aussi bu buñ ko yóbboo mairie ba pare mu ñëwaat tamit wax dëgg yàlla daal di koy dal di koy signaler donc mu ne nag loolu dafa bokk ci loo xam te comme li tubaab naan gel bokkutoon ci ci ci ci liggéeyam du woon du woon du woon foofu mu àgg lan lan doon xaar ci moom daal voilà que que que que que mu mu mënoon a yem foofu su boobaa bu defee moom atteem ba pare donc mu mu mu mu mën a euh, xaar pour am yeneen euh, yeneen moroom yi nga xam ne ñoom ñooy autorité euh, supérieure yi am na solo mën ci kii ci ak moom defe naa ni sax bu fekkee am na ko ne ci ligne bi ñu jël ko daal di tàggatoo nag ba ba ba ba ba ba suba wala beneen yoon incha allah peut-être dinañu amaat yeneen invité yi nga xamante dinañ fi ñëwaat bu ko defee rek ñu wéyee di jàngat li nga xamante ni moo xewoon ni ki tey jii rek bu fekkee am na ku ne ci ligne bi jox ma ko salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam mbokk mi maa ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax. tur bi ak fooy wootee. man la Ndoye maa ngi wootee Italie. d' accord yow rek lañuy déglu mbokk mi. ça va na ngeen def yéen ci jàmm. alhamdulilah. Mhm. Oh, <clears throat> xamatuma daal lu may wax booy boo rek ñu bàyyi Sénégal ñu mel nii ñu. ndeysaan ñu dox di dem rek parce que mënatuñ lii daal kenn xamatul lan la daal. kenn xamatul mhm. lan mooy lii. Mhm. ñu ñàkk yi doon wax naan ay ñàkk lan sax ñoonu tane parce que au moins ñoom dinañ xeex pour seen réew. Mhm. léegi Sénégal moom day xool nit ñi koy teg métit teg ko lu dul yoon def ko lépp ñu bàyyi noonu. léegi léegi xamatuma daal man daal xamatuma la wax samay wax daal ci Sénégal léegi daal léegi daal d'accord bàyyi nii rek maintenant mhm, mhm, daal parce que muy mhm. tooñ doomu jàmbur yàq nañ deram def nañ lépp ba pare am juge mu jàng def droit def lépp ñëw amuloo sax jëmoo jël sa responsabilité wax mu jeex ngay reporté waat ay affaire pour kañ encore pour seen stratégie quoi ñoom mel ni ku nekk ci ay équipe nationale de foot quoi ay stratégie daal la ñuy nekk fu nu nekk ñu ngi ci stratégie sénégalais yi gis loolu toog di xool quoi di rek quoi comme ay spectateur mhm. léegi daal loolu moom Sénégal quoi nguur gi ak Macky Sall moom dañuy def lu leen neex après nga toog ni gongo quoi jeex na quoi mhm. pare boo gisee nit ñi di défendre affaire bi nii comme ça comme quoi que ni dëgg la quoi lam li ñuy def li mu nekkee nii comme mooy yoon daal boo amul jegewoo leen mënoo bokk ci marché yi mënoo bokk ci gré à gré yi mënoo bokk ci kii ñoom. su mhm. ci bokk daal yow sa pour yow ñoom leen di def noonu la ko yow xalaatu cinquante ans yi di ñëw ko moom ni mu ko waxee pour Sénégal ñoom seen seeni présentement rek la ñuy xool quoi pour seen famille. Mhm. loolu daal mooy Sénégal quoi. c'est dommage la c'est dommage ñëpp dinañ dem banu fi ah parce que booy boo nag ñu xam ni. fii ba kenn xamatul kañ la ñun ñëpp dinañ dee bàyyi fi Sénégal mu continuer ni mu mel parce que lii du rek la woon. c'est bàyyi nañ mu ne rey nii du de du réglé wu du mës a réglé wu. bu ñu naan toog fu nekk ñu wax ko fa waaraatee def lu nekk ci yam mais lii mënut a changer parce que sénégalais moo bëgg lii sénégalais moo bëgg mu demee nii. gënuñu gënuñu burkinaba yi gënuñu maliens yi gënuñu nigériens yi gënuñu kenn ñun bañuñu tubaab bañuñu nit ku ñuul bañu bañuñu kenn mais dañoo bëgg mu ñu jaarale ko ci yoon au moins ku ci nekk gis sa njariñ nga defe ni nit ñi ni ñuy génne Sénégal di dem loolu da nga koy rus sax mhm. seen liggéeykaay da ngay rus sax wax ni Sénégal nga ndaxte ñàkk yi ngay liggéeyal ñëpp ñu ñuy wax ñàkk lan burkinabé yeeg maliens yi ñëpp ñu ngi suivre information yi am Sénégal ñëpp ñu ngi koy suivre parce que ñun daf na dafa jaaxal ñu man da ngay burki démb rek laay liggéey ak benn laa nekk ak benn burkina ba ñu toog di waxtaan mu ne ma carrément yéen seen peuple peuple lan ngeen yor ñun suñu président yi bu ñu doon def lii ñu xam ne lii du yoon dañuy jóg da ngay jóg benn yoon mu jeex wala nga bàyyi. Mm-hmm. Macky Sall bu continuer nii nii lay jëm lii troisième mandat bi mu wax ne du ko def daf ko def contre cœur mais moom moom na ginnaaw di def lii ñu mel ni moo fu nekk Amadou Ba amul benn njëriñ. c'est un guignol la bu fi nekk nii rek ñu koy utiliser léegi ñuy sàcc rek bàyyi nit ñu ñuy dee xiif quoi. d'accord waaye noonu man daal xamatuma maa ngi leen di jég gërëm di leen sant nag. merci beaucoup jégal ma dama damay forcer sax wax nii mais xaw ma sax lu may wax. massa ñu ngi leen di massaw bu baax. mais mais mais juste pour àggale ci ci plan B bi nga doon wax. Mm-hmm. que ni man dama gis ni. parce que sax yaakaar naa ni loolu sax mooy am parce que wax naa ko sànq ni pois électoral u Pastef man xel xalaatul jàpp naa ni élection yi ñu jëm le vingt cinq février ñoom ñu togg neutre quoi mm. loolu moom jàpp naa ni xel xalaatu ko ndax euh, soo xoolee li tax ma jàpp ni euh, des fois politique et la ak di ci xalaat xam nga dama mës a déglu Abdoulaye wàdd jaxaay booba euh, Ahmed Aydara moom moom fële ca Versailles France moom moo doon def ak moom interview nee na bi muy wët récépissé de parti en 114 nee na bi mu ko waxee Senghor ñëw wax ak moom ni ko dafa bëgg par exemple pour récépissé wax ko ñi mu ko wax mu Moustapha Niass ak ñooñu léegi nee na bi mu ñëwee ba France parce que boobu jamono au temps boobu récépissé France nga ko daan amee nee na gis nga bi mu ñëwee ba France mu wàcc ci aéroport bi nee boo xoolee tous tous les journalistes étaient là-bas daal di koy tàllal micro bi di ko laaj ni ko yow. suñ la joxee sa récépissé ndax parti de contribution ngay def wala parti radical mu ni leen man bu boobaa parti de contribution laay def parti de contribution mooy gouvernement bi du ma ànd ak moom mais lépp lu mu indi rek dama ciy ànd ak moom c'est-à-dire du ànd du ñëw ànd ak gouvernement bi carrément mais décision bu gouvernement bi am wala lépp lu mu indi rek comme programme da ci ànd ak moom hmm. mais boobu nee na gëwuma ko woon mais boobu xam parce que bi ko journaliste yi di laaj boobu moom il savait bien que ni Senghor mi ngi toog ci fa euh, Senghor mi ngi toog ci fauteuil yëpp di ko seetaan tey su nee woon parti position lay am rek su boobaa tey bu bu bu bu bu ñuy bu ñuy wàcce micro yi rek Senghor daal di woote ni kii bu mu jot. stratégie la teg boobu stratégie la teg hmm. donc moo tax man ci côté boobu vraiment nag euh, yaakaar naa ni xëy na euh, Pastef dinañ dinañ doxee ak ñoom stratégie te nag li ma ci gën a jàpp mooy ñoom fi mu ne nii seen objectif. warul nekk pour Sonko mu bokk par A ou par B su ñoom bu ñu demee ba jéem loolu amaana mënul am mais pour pourquoi pas ñu jël peut-être un Birame Souleye Diop wala ñu jël un. par exemple benn El Malick wala Guy Marius Sagna jël ko suñ ko jëlee après euh, ku ci doon président nga jël Ousmane Sonko nommé ko premier ministre soo xoolee kaa boobu sax cas wu Russie Vladimir Poutine ak euh, euh, ki nekkoon vice président am noonu la Vladimir Poutine dafa def deux mandats après xam ni loi yi élection yi yi ñu jëm mënut a bokk mais dafa jël vice président dafa jël comment dire premier ministre am ni ko léegi moom day doon président mm-hmm. léegi bu doonee président rek donc yeneen élection yi bii ñëw moom Vladimir Poutine day amaat. defe ci euh, tànk yooyu ndax loolu euh, naam dama jàpp dañ ko bañ a ndax bu boobaa mën na indi ay gàllankoor ci xeex bi nga xamante ni moom la ñu nekk ngir dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi. Mhm. wala pour Ousmane Sonko bokkaat ci li nga xamante ni mooy euh, nekk candidat candidat ci présidentielle 2024 yi. Mhm. dama jàpp ni dofuñu ndax jamono ji li koy findeel mooy fiche de parrainage yi. Mhm. Birame Souleye jël na ñoom ñu ngi koy daal di waajal donc ñu daal di xaarani rek fii ak ay fan ñoom it euh, lan la ñuy indi teg ci table bi parce que nag euh, comme li may wax boo xamatul fa nga jëm mhm. da ngay daal di delloo fa nga jóge woon nag donc euh, ñu ngi leen daal di xaarandi jamono ju ñu toll nii mbir mi renvoyé nañ ko ci douane tribunal le 13 dañu daal di wax donc ñu xaarandi fii ak le 13 moo fi daal di xew ak yan jéego la Pastef di tegaat ci kaw table bi xam naa fi la ñuy daal di jaaree sax tàggatoo Cheikh ba ba ba beneen yoon wala lundi incha allah pourquoi pas voilà ngi lay ci jëfal bu baax a baax mbay la nga tàggatoo ak mbokki internet yi. waaw jërëjëf soxna Diarra comme ni nga ko waxee rek lépp luñ